ñu ngi leen di ziar di leen béggee euh, tey jii la cinq mais tey 2024 ñu ngi fii tey ci Géejawaay euh, di nuyu suñu DG Basirou Ka borom Medinatul Njulul di ko ziar di ko béggee tey ñu ngi fii tey buntu kër Sa Thiès euh, tey di ñëw fii rek def benn interview xool ambiance bi xool préparation combat bi avant ISAT Euh, ñëw fii ci koñu Sa Thiès euh, ndeysaan tey mu doon combat bu mag a mag a mag mag ci moom tey euh, mu war a jëlal magam tey revanche ki di nga xam ne moo di Eumeu Sène Eumeu Sène ki nga xam ne moom lay dajal dafa daan magam ñaari yoon kon tey combat capital la war a doon tey ci waa Guédiawaye ak ci Sa Thiès mi nga xamante ni tey mooy jàkkaarloog Eumeu Sène tey day bëree ñaar bëreel waa Guédiawaye pare bëreel waale ak magam tey muy doon lu doy waar doy waar doy waar ci moom ñuy xool ambiance tuuti xool préparation bi wax pro sama jine caméraman di la ziar waaw xool waa waay na lañ préparé combat bi. wax dafa mel na nga xiif <laughs> waaw ndeysaan waaw jàmbaar ji waaw ñu ngi la bëgg laaj rek tuuti rek ci Sa Thiès nga xamante ne dafa mel ni yéen yéen a bokk koñ n'est-ce su ma juumul waaw di la laaj rek ci Sa Thiès tuuti yow euh, Sa Thiès nu mu nekkee ci koñ bi fii ak yéen euh, en tant que moom sportif en tant que tamit tey ci ci biir làmb ji ak combat bi tey nekk combat capital tey war jëlal magam revanche ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 xam Sa Thiès. non xam naa ne gars yi mu fair play la ku yaru la c'est incroyable te xam naa ne làmb ji moom bu tee def def calme rek ak ànd ak sérénité ak lucidité xam soo jàppee waajur du doy yaa ma gën a xam. tey waa Guédiawaay nii la ñu préparé tey combat fii ci buntu kër Sa kon nii lay mel saa waaw di la bëggee nag di la jaar di la jox sa wàccuwaay xam ne Sa Thiès ngeen di dundee moom ngeen di bëggee waaw tey di ñaan rek ndam ah. waaw waa Guédiawaay comme ni ñu daan préparé combat rek xam nga ñëw ànd ak def benn seen rassemblement. Ah. fii gars yi fi dégg roi des arènes gis nga ah. leen xam nga. mais Eumeu Sène neexul bëreel de. mais Eumeu Sène mbër la comme yeneen mbëri rek. te moom mu ci mu ci ay neuf ma ah, yoon. waaw loolu du dara loolu du dara xam nga soo day ñëw xam nga euh, relevé gën a comprendre. waaw ñëw daan waa ji dem yoon. ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la bëggee. waaw wax wax pro di jëlaat keneen rek. waaw jëlaat keneen des na waa Guédiawaye dajaloo ndeysaan di am yaakaar ci seen doom ndeysaan tey xam nga lii ndam rek moo ci mën a war a mën a topp wax waaw ndam rek moo ci war a mën a topp tey Sa si buntu këram tey xam lii rek mbër su génnee jàkkaarloo lii rek yaram moom dafa war a mën a daw jaayante deme bu demee stade waaw parce jëlal ma ambiance bi jëlal ma ambiance ak préparation bi waaw jégalu. Eh. ah waxoon naa dinaa jot wala. waaw bu awa fan yee ko moom dina mën. muy jox garab la. muy buum nag. Adame! Adame! waaye zumal ma kii waaye ma xool ko bu baax mais kii moog Sa Thiès kiif kiif ah Requin ndeysaan magam tey mu ngi fële ci INSEP Balla Gaye di préparé combat kon Tapha Tine kañ la ñibbi si wax si loolu yëgu ma ko ah kon tey dinañ gis le le lion de Guédiawaye Balla gay 2 ndeysaan maa ngi fàttaliku Sa Thiès ba muy bëreeg rëg rëg ndeysaan keroog deret ji xam nga daw bala ñëw taxaw ci stade bi. am lu mu yor ci loxo ji boo ko jox rakk ji am am ko football tànk bi am ku football loxo bi bala mer ndeysaan ma xam ne gaynde mer na mais buggul yàq bës bi wax rakka ma doon bëre te tey nu mu mujjee rakka ma am ndam bal la ko métti woon ci làmb yëpp rakam dem na ko mën na ko fayul bu ko tegee ci kot te ko ci yoon leen rek lay ragal ci saa leen rek laay ragal ci saa erreur saa erreur saa waagaan li tubaab di wax rek il n'a pas le droit à l'erreur hein tey aujourd'hui waa Géejawaay dañ ko yónni yàkkamti ko Géejawaay dañuy yónni Sa Thiès yàkkamti ko waagaan li may seen noonu dafa mel ni mystique yaay préparé noonu pour ñu koy dugg ci biir kër gi waagaan waa waa waagaan yow waaru woo man ma yaakaar ne mystique biir kër la war a génne waa waa mystique ah lii ay feemu làmb la de lii ay feemu làmb la wax si pro lii ay feemu làmb la wax si pro li ma gis si làmb làmb tey dañ ko moderniser waat wax si pro dañ ko moderniser waat dañ ko moderniser waat tey fii nga xamante ni mooy euh, suñu réew Sénégal lamb di suñu sport national lamb. demoon na ñu fii ci buntu kër Sa Thiès muy préparé combat moog Eumeu waaw euh, sànq ba léegi euh, séntu wuñ fi dara gis ñu fi dara lu mel ni mystique luñ duroog mystique xorom daal lañ gis ñu wis ko ci buntu kër gi waaw euh, sànq léegi léegi léegi daal gis nañ ay ay ay jàmbaar daal taxaw ci kaw balcon bi xam nga di yor seen téléphone di woote loolu yëpp daal yaakaar naa ci wàllu mystique bi la ah, ñu ngi takk seen loxo yi ay morceau yu weex tey waa kër Sa Thiès ñu ngi waajal seen bës bi de waaw ndeysaan tey dafa nekk bés bu mag ci Sa Thiès revanche war a jëlal magam ñaari revanche muy ñaari défaite yi nga xamante ne magam am na ko ci kanamu Eumeu Sène mii di nga xamante ne tey euh, dégg na roi des arènes nekk na champion d' Afrique tey Sa Thiès déggagul roi des arènes nekkagul champion d' Afrique di xale bu ndaw war a jëlal magam tey revanche yaakaar naa tey mystique amul lenn luñ ci war a mën a bàyyi euh, ni ma gisee tey waa kër Sa Thiès daa mel ni tey euh, danoo yor mistique ba nga xamante ni tey jéggi na dayoo daal li ma la mën a wax tey jii tey Wax Pro ñu ngi fii tey ci buntu kër Sa Thiès buntu kër taxaw fii euh, di préparer comme a contre Eumeu Sène euh, ndeysaan waa koñam ñëpp ngi new génn pa mère mag ndaw xale ñëpp a ngi fii tey waaw. di ziar euh, di ziaraat suñu DG bu baax jëwriñ Bassirou Ka jëwriñ universel borom Medinatu Njulul di ko ziaraat di ko ziaraat bu baax a baax. Ah, di ko naan gis nañ sa taxawaay gis sa taxawaay ci biir Sénégal gis nañ sa njàmbaate si biir réew mi waaw ku ne sax nga may ko ah jëwriñ bas jëwriñ universel ñu ngi lay ziar yow la Cheikh be ci wolu motax mu jox la nga ñu tuddé la universel kon ñu ngi lay ziar di la bëggé waaw ñu ngi jàkkaarloog wa kër Sa ci buntu kër gi di gis ay ay ay vigiles xawma ma ay garde corps lañ koy wax waagan liru jaan mo ngi non di dugg ci liru moy seen mak mo yor lepp mom lañ jox lepp ndeysaan motax liru bu teddé sax du nelaw ndeysaan billahi lamb dafa metti lamb dafa metti wax pro lamb dafa metti bu ko xasee ba taxaw say waa du ñu nelaw amateur yi nga xam ne dañoo bëgg lamb di mag ñi nga xam ñooy biir nekk biir Sénégal euh, di seetaan lamb bëgg lamb bëgguñu lamb suux jàppalewaat lamb ba sponsor yi mag yi dawee lamb daf euh, waa doomu réew bi ñoo préparé waat yor seen i entreprise jël seen entreprise sponsoriser lamb ci dara du dara waaw ndeysaan waagaan di jaale waa kër Père Gaston di ko jaale nekkoon benn monument ci lamb Sénégal def fi la nga xamante ni di ko ah. jaale waa këram di ko jaale Sénégal di ko jaale la président euh, Diomaye di ko jaale premier ministre Ousmane Sonko di ko jaale mboolem ñu nekk ci gouvernement bi di ko jaale Sénégal Père Gaston yal na ko yàlla jégal te yërëm ko yal na ko yàlla jégal te yërëm ko xare ko àjjana ak ñi fi bàyyeekoo yëpp. ndeysaan hmm? bala ga hmm? dafa mel ne lu may ci suma jumul yaakaar naa daa am oto bu dugg si naa oto boobu moo yor mystique waagaan waagaan man foog foog may xool waay fi dafa xat ndeysaan tey fii ci kër Double Less waaw ndeysaan Sa Thiès a ngi noonu Sa Thiès a ngi noonu sol jàllaabeem dugg si yor benn soccu Sa Thiès a ngi noonu di dugg si biir këram yor benn soccu wàcc si oto ànd ak waa këram ndeysaan waagaan xoolal ma xale yi ah lii dafa neex waagaan bokk ak nit benn koñ muy champion di nar a bëreeg benn champion bu mag bu naan Eumeu Sène ndeysaan dégg roi des arènes dégg champion d'Afrique Sa tey war a jëlal magam tey euh, revanche. waagaan tey ambiance bi fi nekk jéggi na dayoo mbooloo mi fi nekk jéggi na dayoo. mbooloo mi. Oh, waag sa ambiance bi neex na ambiance bi neex na ndeysaan.